su may wax si moom su ma xool mooy tooy. man pour man sama jëkkër ñaari tànk la yor. waa xeebu ma ko benn yoon. Mhm. lu ko neex laay def lu ko neexul neexuma. Mhm. kii ku ko sargal yàlla sargal ko ku ko sargalul yàlla sargal ko. Mhm. damaa ñaan yàlla moom ma njëkk koo dem. mu rob ma ma ñaanuma yàlla sax toog di ko téeñ. Euh, ami téléspectateur people 221 ñi siiw ñu ngi leen di nuyu di leen siyaar di amaat mbégte jàkkaarloo waat ak yéen di nuy suñu kilifa di nekk suñu kilifa day di ñaan réew mi du Sénégal yàlla na suñu borom dolli jàmm. di ñaanal ñi nga xamante ni caabi dana féete ginnaaw yàlla may leen jàmm di ñaanal ñi nga xamante ni euh, ñu ngi ci suuf yàlla suñu borom yërëm leen te teeru leen tey nag euh, ku ne xam na ni 8 mars mu nekk bés boo xamante ni dañ ciy sargal jigéen people 221 nag li may wax. sargal jigéen ñoom taamuwuñ ci ki toog bureau donte ki dafa liggéey ba toog fa waaye taamuwuñ ci tamit euh, kenn ku dul soxna si di soxna Awa di euh, chéri Momar. seen seq ak moom waxtaan en tant que jigéen dañ lay bàyyi nga nuyoog ñu lay siiwar. Mm. Sénégal maa ngi leen di nuyu di leen sant. Mm-hmm. waaw ci seen déplace àdduna yëpp maa ngi leen di nuyu di leen sant. Mm-hmm. Ah, ñëw seet ma. Mm-hmm. maa ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm. Mhm. Sénégal gépp ñëpp kontaan si man ñëpp a may bëgge. Mhm. maa ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm. Mhm. waaw salaam bisimilah. tey mu nekk 8 mars 8 mars ku ne xam na ni mooy bés boo xam ne dañ ciy sargal jigéen. Euh, tey euh, lan mooy taxawaayu jigéen euh, ci société. ah taxawaayu jigéen de moom metti na mettiwul la yàlla maye borom kër ci sa borom kër ngay jiitu. ndax borom kër moom bu la yàlla booleeg moom. Mm-hmm. loo mën a def rek ci moom nga waree a jiitu bala ngaa def leen. Mm-hmm. toppatoo sa borom kër boo jógee ci sa borom kër toppatoo ko ba mu baax ah yar sa njaboot boo yaree sa njaboot séq ak say am di jàmm am ak ñoom jàmm am ak ñoom salaam. mais sa jëkkër moom mooy pee. d'accord euh, jamono ji ñu gis ni léegi jigéen ñu bari daanaka amatuñ kersa. Mm. te bu njëkkaan mag ñi niñ leen daan yaree jigéen daawoo sigi xool euh, góor. mais léegi ñu gis ni daanaka kersa bareetul ci jigéen ñi ak di yëkkati sa waaw foo tollu ñu xam ne jigéen a ngi ñëw su ko loolu comportement bu baax la ci jigéen. waaw ah, loolu xale yi moom da ngay yar ba pare ñooy génn ci biti yàqu. Mhm. loolu moom xale yi kilifa yi nag moom yar nañu. Mhm. mais xale yi ñooy génn rek yor seen beneen jikko. Mhm. waaw su ko defee rek nga gën a góorgóorlu rek. yar leen. mooy kii bi. dëkk bi moom ku ne xam na ne léegi moom. yàqu na waaye nag. ki nga xam ne moom li doon sa jikko moom mhm. dara mënu koo saase mhm. waaw dee rek moo koy saase mhm. waaw d'accord mu ngi noonu du ñàkk nag foofu la ñuy ubbee ndax 8 mars lañ wax waaye 8 mars sargal jigéen ñi du ñàkk ay seede yoo xam ne dina ko ci def mm. ma ñëw ci sa ci sa ci sa ci sa ci sa diggante ak ak kii di sa borom kër waaw ndax sama jëkkër ji ku ma ci laaj dama ciy sawar merci waaw jërëjëf ah sama jëkkër ji nag macha bàyyi Kumba ak bàyyi Daba ak bàyyi Moussa kii su may wax si moom sax du so samay dongañ day kii. waaw day tooy. Mhm. ndax wax dëgg yàlla damaa bëgg damaa bëgg yërëm ma. Mhm. damaa xartu ci moom dugg ci moom. Mhm. jooyloowu ma. lu man na mu takk tëneem bi dencu daray banque. mbedd mi rek lay de lay amee. waaw sama jëkkër ji. ni ma xamante moom nag dama doon liggéey. di ñuy wax Fatim Seck koroog ba ma koo dugalee Fatim sekk daa njëkk wootee ne lii mu wax maa koy seede. Mhm. foofa laa ko xamee ci moom. Mhm. mu doon defar ay dàll. Mhm. waaw. ñu yónni ma ci moom ne ma pour mu defar la ay dàll. ma ñëw fekk ko mu toog man na ko yow de la ma Fatim yónni pour nga defar ay dàll. mu ne waaw mu daal di ne ma dàll yi mu xool dàll yi ne ma waa demal ba ci kanam nga ñëwaat ma dem ba ci kanam ñëwaatuma sax. mu woof mu Fatim na ko yow da ki ma yónnee woon ba mu ñëwee defaroo daal mu ne ko waa damaa amutoon jot waaye nee ko bu bu mu jël si daal dinaa pare far gis na Fatim mu na ko dama may sa jànq bi Fatim na ko ay moor mu na ko ah may ma sa jànq bi nam naa ko de mu ne ko ah kooku de boo ko amee di nga am jabar baax na yaru na te liggéeyam la toppatoo. Mm-hmm. waaw si noonu la ñu xamante ne. Mm-hmm. tey tey tey bi ngay dugg ci moom est que yomboon na ak kirti gi aussi ah yomboon mhm. ndax ku mel nii mhm. macha allah nga mel nu la neex ñëpp bëgg la ah nga du neex du neex waaye man fekk nag mbëggee jàpp na ma si moom. Mhm. moom it bëgg na ma. Mhm. waa ñu bëggante. Mhm. sunu mbëggeel seer seer. man chaque jour damay féete sama mbëggeel moom. ak Sëriñ Fallou Mbacke dama koy féete sama mbëggeel man dama ne mbëggeel. du benn fan te du weer. mbëggeel chaque jour la. chaque jour ma beesal sama mbëggeel si moom. kii dama koo bëgg ba gëmewuma ko. billaay wallaay. dama koo bëgg ba gëmewuma ko billaay. chaque jour bu yeewoo fi xale yi dañ may reetaan mm. su yeewoo dama koy jël maa koy sëlëm mm. su ma ko sëlëmee jël boros bi borosal ko mm. su ma ko borosalee ba pare foon ko ñaari foon mm-hmm. xale yi ree <laughs> ma ne leen chaque jour damay feete sama ba si moom man aw ma ci benn kersa man dama koy bëggee man man pour man sama jëkkër ñaari tànk la yor waa xeebu ma ko benn yoon mm-hmm. lu ko neex laay def lu ko neexul neexuma mm-hmm. bu nee bëgguma lii bëgguma lii. Mhm. wutuma xarit wutuma àndandoo. Mhm. mooy sama xarit mooy sama àndandoo. Mhm. waaw ginnaaw bi nga defee ce soir ba dugg ci moom. Ah. Euh, tey ci soo ko def famille. Mm. est-ce yomboon na. ah yomboon ñëpp ma ba gisuma ki woon kenn. waaye ma ànd ak moom mu gore lool nag. ànd man jàppale ma ci lépp. waaw moom lépp mu jàppale ma ci. waaw toog naa ay at gisuma samay mbokk. li tax ndax bëgguñu woon sëy bi. Mm. bëgguñu woon sëy bi. waaye man ma dugg ci rek comme dañ ma ne nag ah boo ci duggee loo ci gis loo yaa xam. Mm-hmm. man li ma ci gis metti na lool. Mm-hmm. ma toog ko muñ ko. Mm-hmm. waaw bañ a sonal kenn. ku ñëwul sama kër doo ma gis. waaw ku ñëwul sama kër may dund lu metti nag. comme lu métti nag ñàkk lekk ñàkk fu ma tëdd. waaw xam nga loolu métti na. waaye kenn xamaluma ko ma mel nu ma neex. waaw waaye nag. sant yàlla rek. Mhm. sant yàlla. Mhm. tey maa ngi toog ba di ko nettali sant yàlla rek. Mhm. tey en tant que en tant que jigéen. nga toog ci sëy bi euh, ngir jigéen ñi nga xamante ne dañ lay seetaan. mën a am courage parce que tey jigéen ñi bari ñu ngi def soit du ma sëy kii du ma sëy lii yow tey euh, donte ki ngay sëyal euh, laago la mais tey nga am courage yu toog di ko muñal. waaw pour man de ñoom xanaa rek danoo kii rek waaye ñii ci société bi lan bokk. Mhm. ñii ku sëyut ak ñoom koy sëya. Mhm. te ku leen am nag am jëkkëru njëkkante. Mhm. barke Sëriñ Fàllu Mbàkke ñii. ku leen am am jëkkëru njëkkante. duñ la duul duñ la xas. te lu nu am may la na may na la ko. jeex na. kon kay man man duma xool borom kaat kaat. la ma waxoon benn góor rek may wax ak moom mu ne ma puusal ne yéen wala ay walaakaana ngeen. ma ne ko walaakaana fan lañ koy bindee moo la wax loolu. moo ma wax loolu mu ngi fii ci cité bi. lu tax wax la loolu. Eh, ah, maanaam sama doom bu gii moo fa doon liggéey. Hmm. mu war koo fay ma dem di ko fayeeku mu ne ma yow puusal jëkkër ji génn ak ay caabeem daan ne ma puus leen ale ale ay ka yéen ay ay walaakaane ngeen. Hmm. ma ne ko walaakaane fan lañ koy bindee si nit. Hmm. walaakaane dama lay laaj fan la yow sa jabar bu taxawee man ma taxaw. yow mi lekk ginaar ak man mii lekk keccax su ma taxawee sa man man la nee xool. Mm-hmm. yow man maa gën a tooy sa jabar. Mm-hmm. waaw. Mm-hmm. ñuy wax ci ñu werante ci lool muy yëngal caabi ma ne ko man gis nga sa caabi yooyu nga yëngal man sama kaat kaat baa ngi nii mooy puus puus bi. foofu nag la jooyee. waaw foofu la jooyee ñëw jéggalu ma. ne ma billaahi wallaahi damaa rus ma ne ko sama kaat kaat mi ngi nii taxaw mooy sama puus puus. ma ñëw ma borom kaat kaat sama puus puus bi laa gis. waaw ndeysaan mu ñëw nag jooy. Mm-hmm. dem këram am lu ko metti lool. Mm-hmm. mu ñëw nag na mu ne ma jéggalu. Mm-hmm. ma daal di koy jéggal. ne ko àdduna wala kaana kenn bindu ko fenn. ne doo gis ne ne ko wala kaana. waaw mu jël di ma may ma ne ko baax na ndax nag maa njëkk a xas kon baax na fayal li sama doole sama jëkk doom doole bi mu la liggéeyal fay ko ko rek mais yow loo jël di ma may baax na. Mhm. sama jëkkër ji. Mhm. kenn du ko manquer. Mhm. Ah, sama jëkkër ji nunguwuma ko ko manquer. suma ma la rombee caractère laay ànd ak samay doom it caractère kenn yebu leen. ndax seen baay bi ku mat la. Ah, kon tey man sama jëkkër ji kenn du ko tuutal. man chaque jour dama koy bëggal. di ko aj ca kaw. waaw. Mhm. naka naka ngay organiser woo ak sa borom kër parce que sànq maa ngi lay dégg nga ni quatre heures du matin lay xëy. waaw bu dee xëy. Mhm. quatre heures quatre fu montar bi jot kii rek ma jóg. Mhm. bu jógee ma dem tàngalal ko ndox su ma ko tàngalalee ndox ba pare ma soog koo tegal. daal di koy yee. mu jóg su jógee ba pare yëg ci pousse ma jàppale ko si pousse pousse bi. su jógee. ma yóbbu ko si douche bi mu dimbali ko ba pare. Mm-hmm. su paree ba pare mu génn su génne ma awa pare naa ma koy tànnal yére yi mu war a sol. Mm-hmm. tànne ko ko ba tegal ko ko ne ñu julliwaat ñu kii noonu noddaat beneen nodd mm-hmm. ma dem julli fekk moom mu julli tamit ba pare ma jël baraada bi teg ko boyal su ma boyalee teg toog ci wetam muy solo. muy sol solo ma xelli la wal xelli deuxième. ci fajar gi ci fajar gi. xelli mu naan mi ngi nii du ma fen naan su naanee ba pare su paree ma jàppale ko mu soog a yéeg daal dem. Mhm. ma soog a sàccaatee nelaw man. kon lépp nga koy te maa ngi koy dund te dara sew ma méttiwu ma dara méttiwu ma ci. Mhm. te boobu ba tey maa ngi koy dund. Mhm. waaw. su wàccee nga war koo jëli ci mbedd mi. ma war koo jëli ñëw jàppale ko nit ñi di ma xool taq ripp nag taq ripp. day taq taq taq waaye su ñëwee ma tànq sama ndox tànq sama om def sama eau de javel hmm. def sama lépp dugg ci duus bi maa moom bomb ko ba mu set hmm. su paree ma diw ko hmm. su toogee doone kii moo soloon tëni bi lépp rek pour dundal njabootam xam nga loolu metti na metti na kay waaye nag ah sant yàlla rek sant yàlla. tey tey tey boo ñu doon fàttali. boo xamante ni jot nga ko dund ak sa borom kër ba tay soo koy xalaat mu lay metti donte bëri woo ci naqar parce que amour moo la ci dugal. Eh, waaw loolu de moom wax naa ko ba Sénégal dégg ko. Mm-hmm. nee naa ko li ma gën a métti sama àddina koroog ba may am sama taaw. Mm-hmm. nga ngay am doom gisoo kenn. Mm-hmm. sa jëkkër mu leer na la yorul dara. metti na de. li ngay ëmb sa taaw. waaw waaw metti na. Mhm. ma koy wax sax damay jooy. Mhm. wallaay. su mhm. toog naa juróomi fan lekkuma. di ngay ëmb sa taw. waaw ma dem ñu ma danga war danga dangaa matu mais dangaa dangaa danga dangaa war a lekk. ma ne ah ma ne waa ñëw waxuma ko ko sax ndax su ma ko ko waxee. moom dina ko def xalaat. te yorut lum ma jox. te samay comme samay kii waxoon nanu rek ma ànd ak sama ngor. waaw ma daal di noppi. Mm-hmm. waaye ku ñuy wax xaw ma kooku xaw ma ko sax xaw ma ko sax waaye yal na ko yàlla fay. amiin ko yàlla fay bu ma seetaanee waxoon naa ko ko. Mm-hmm. waxaat naa ko ko tey madame Ndiaye. Mm-hmm. madame Ndiaye la tuddoon. waaye xawmatuma fu mu ne. kooku moo dimbali. Eh, ma expliqué ko ko yëpp ñu jël ma yéegal ma ci yóbbu ma la daan teg. Mm-hmm. ñu ne kii dafa perte lu bari il faut que kii la daan teg lay amee doom. Mm-hmm. ñu yóbbu ma ma dem aw ma dara ñu ne amal sa ma ne leen sama jëkkër néew di doole la yorul dara. Mm-hmm. kooku daal di ñëw kay futteeku ñëw moo ma jàppale ba ma doom. fay lépp defar lépp. wallaay li mooy ruyee sax moo moom ma ko waaw kooku moom maa ngi koy sant chaque jour maa ngi koy sant. Mhm. waaw tey tey lan moo la ci lan moo la ci ginnaaw euh, du ma ne naqar waaye euh, li nga xam ne jot na ci jaar nga koy nettali lan moo la ci gën a neex jur boo xamante ni toog nga mu neex la nga am fierté ba boo koy xalaataat di bëgg. li ma am ak moom moom njaboot. ndeysaan. Hmm? Mhm. ñu amul njaboot te loolu laa doon ñaan yàlla. Mhm. ñu naan ma yow kii loo koy julele kii nga xam ne amul dara. Oh. amul dara. Mhm. ma ne leen kii kaas yu matut laa bëgg. Mhm. même su ma dee xëy di yelwaani di dundal sama njaboot danaa ko jural ba dëkk bépp xam ne dama koo bëgg. ma am ak moom ñeenti góor ñeenti jigéen. loolu sant yàlla la. am nañu am luy jeex te amuñu dara. amuñu doom. lu dëgg. tey ma am ak moom njaboot. may bëggee ci loolu. waaw. loolu mhm. laay gën a bëggee ci moom. Mhm. njaboot gi ma am moom rek laay bëggee man. Mhm. waaw kay. après kirti gi. waaw ah, léegi nga demee ak sa famille. ah léegi sama famille bokk na. ndax xamoon nañ ne li ma bëgg. xam naa li tax ma bëgg ko. ñaanu ma leen koo ñaanut. abbu la ñëwut ci yow waxu la mititam kon da ngay delluwaat rek. du dëgg. waa ci lañ delluwaat. ñu nekkaat benn. Mhm. ma xam ne danoo réer rek. Mhm. ndax ñii ci société bi lañ bokk. wóor na yàlla li ma koy ñaanal man damaa ñaan yàlla moom ma njëkku koo dem mu rob ma ma yàlla toog tënju ko. Mhm. damaa moom ma koo dem. mu rob ma ma ñaanuma yàlla sax toog di ko tënju. ndax xare ga ma xare woon dugg si moom tooyalu samay bët benn yoon. waaw loolu laa koy ñaanal gudd fan ak ko góor. Mhm. laa koy ñaanal. Mhm. waaw. Mhm. ndeysaan vraiment yaram daw na lool nag yaram daw na lool mais ñu ngi lay encouragé bu baax a baax di la ñaanal li nga mébét ci sëy bi yàlla na ko suñu borom defal nga am ci lu kawe sa njorto. tey sa kàddu tàggatoo après mu doog a ñëw ci ci ci ci Momar. Ah, sama tàggatoo nag di leen sant di leen gërëm. waaye damaa bëggoon na ngeen may ma ma gërëm ñoo xam ne. ñooñu boobu ba tey taayiwul. gërëmal ñooñu. Mm-hmm. ba tey taayoon su suma alaaji jaw mm-hmm. ca Kawlax mm-hmm. maa ngi koy gërëm di ko sant ak njabootam alaaji jaw papa alaaji jaw maa ngi lay gërëm yaa yaa awa ak daba yi ñëpp maa ngi leen di gërëm saa bu weer bi dee ñu may ma ceeb may ma diwlin na ma jëfal waaw dëkkal ma ñooñu tàyyiwuñu mm-hmm. ñooñu moom du ne mm-hmm. ñii am nañu te fekk amuñu mm-hmm. papa Alaaji maa ngi lay ñaan gudd fan ak wër yaag sa njaboot gépp ca marché Santara ñeeñ maa ngi leen di sant bu ma jógee foofu nag ñaanal sama papa papa Tiwaawan papa Jóobam sëñ man sóor maa ngi koy ñaanal gudd fan ak ko wër di ko ñaanal lu mu dund doyut lu mu dund doyut moom ak ndey ba ak maam ndaw ñëpp maa ngi leen di gërëm waa di gërëm waa Kaolack gépp mhm. di gërëm Ngañ. Mhm. Ngañ Camara maa ngi mhm. koy gërëm. di gërëm euh, kii Père Koke. ñi may jàppale rek te tàyyi wuñu gërëm Maas Jaw ca Kandar. Séeri Kumba Njaay maa ngi koy gërëm. gërëm euh, kii Moor. Moor Moor Kandar. maa ngi lay gërëm di la sant. jëkkër Sëriñ Njaape mm-hmm. maa ngi leen di gërëm di leen sant man awa mm-hmm. di gërëm Kiné Mbaw mm-hmm. ñoom ñëpp maa ngi leen di gërëm waa Kanda gépp ku ko dégg rek maa ngi koy gërëm euh, voilà mbokk yi nga xam ne yéen ànd ak ñun duñu seetaan ba tey ñu ngi ci 8 mars bi euh, buñ ne diw baax na nag dañ naan mbokk yaa ko wax euh, tey kii di soxna si di awa wax li muy dund ak ni mu nekkee ak borom këram waaye nag tungu neeru teew ñu nataal manaar naar yaa ngi borom këram a ngi nii Momar dañ lay bàyyi nga nuyoog ñi lay seetaan gannaaw bu ma sant yàlla julli ci rasulullah di ñaan yàlla mu doole ma xolu muñ moom mi ma teg la bañ gi ma doon di ko ndamoo di ko tiitaroo gannaaw ba ma sante yàlla di nuyu Sénégal yëpp di nuyu àdduna yëpp waaw ci kàttanu yàlla. tey di mars. Mm-hmm. muy sargal jigéen. Mm-hmm. Euh, nga jàkkaarloog sa soxna. Mm-hmm. tey yan seede nga mën a def ci moom. benn seede bi gën a gàtt bi gën a gàtt ah, yàlla moom moo ko tànnal yàlla moom moo ko beral yàlla moom moo ko tànnal yàlla moom moo ko beral. nekk na jigéen joo xam ne boolewul dara ki wax chaque jour heure boo yeewoo suba ba ngoon bu ma tourné su ma soxlaa suma bopp dama koy jot lu jafe ci jamonoy tey jii tey mën nga génn tey nga soxla sa bopp nga ne awa ñu ne wool leen ko si mbedd mi déedéet su ma ne awa dina ma wuyoo ci biir néeg bi wala mu wuyoo ma ci biir kër gi loolu rek dafa doy. Hmm. loolu rek doy na seede. Mhm. billaahi. Mhm. kii dama koy ñaanal yàlla sàmm ko sàmmal ko njabootam. Mhm. ba mu fekkee njëriñu njabootam. ci yërmande suñu borom. tey ñu bari ci jigéen ñi di wax duñu duñu boo xoolee léegi sëy nangootu la yàgg parce que jigéen ñi léegi dañuy def choix ci ay sëy moom mu choisir la donte bi muy dugg ci yow kirti gi méttoon na ak famille bi. bi muy dugg ci man métti na trop bu dee dëgg rek moo neex yàlla métti na lool lool waaye jamono yooyu maa ngi liggéey. ci dàll yi ba tey nii maa ngi liggéey dàll di sant sama sëriñ bu baax limaamul Mahdi. sallallahu alayhi wa sallam. waaw di sant limaamul waa kër maam limaamul bu baax baax. parce que gannaaw yàlla ñoo ma dekkalaat cosaan maa ngi nii ubbil ma benn cantine bi may liggéey dàll taay sax mooy loolu dama ko téye. actuellement nii yaa ngi dégg ma pause ni tuuti. Hmm. waaw parce que dàll yi mun naa ne dox na doxul parce que boo xoolee. chinois yi ñoo gën a yàq marché bi. Mm-hmm. moo léegi da ngay liggéey dàll day des sa mm-hmm. da ngay liggéey lu mu rafet rafet. Mm-hmm. da toog ay fan bu pour mu jar problème lay doon. loolu dong la. ñu ngi sant yàlla bu wér. di julli ci rasulullah sallallahu alayhi wasallam. lan moo lan ngay xalaat ci sa ci sa ci sa mu doon loo xam ne nii des fois da toog yow yow euh, di xalaat mu xaw la metti di ko xalaat ci ay rêve yoo xam ni yaa ngi ko doon. su ma sañoon yóbbu ko màkka barki laa ilaaha illallaah. su ma sañoon jëmm ji toog. aduna heli wali jali so wonamo yali dañata ko ñaami e dow golle bonde en dan boni daretuna futti fuyni waa àdduna ngeen baal ma ngeen baal ma sama xol moo sori ci awa kii mënu ma wax ci moom wallahi azim lu ma wax rek te am lu ma bàyyi man am naa maam jaara buso mu ngi nii toog sama am naa maam Paa Wade mu ngi nii toog si man kii bañalu ma dara moo tax su may wax si moom su ma xool mooy tooy nga ne lu ma ko yéene pour defal ko kii yéene naa ko lu ëpp bu ëpp fekkoon paasuma ko mu am na lu ko ëpp dama ko koy yéene. waaye fi mu toll nii paasu maaka moo ëpp ci àdduna kon dama ko koy yéene moom su ma ko yàlla mayoon kitaabu naa ko ci war may baatu laa ilaaha illallaah day dem màkk ma tabaxal ko kër gu rafet yoo xam ne àdduna yëpp dañuy xam ne kër gii kër awala dina am incha kër gii kër awala mm-hmm. bu boobaa man su dee damay tàll incha allah loolu am. sama na bay tàlli. man sama aduna su aduna lépp lépp lépp lu may rêve rek yàlla naa am fu ma ko dugal bala may génn aduna ak suma njaboot. am na ñu bëri nag ñoo xam ne ñu ngi ma dikk wallahi azim gisaguma ci lenn nday jaay Tyson dig na ma Alex Sène dig na ma kër ba jox ma kayitu kër gi mu ngi nii si biir kër gi waaye ba tey nii neew ma teeree baa ngi nii kon su ma amee jullitu yàlla yu ma mën a dimbali am fu ma dugal suma njaboot damay jël waaye aw man mënu ma wax si aw moo fi moom. tey ban message ngay lancé ñi nga xamante ni tey bëgg nañ la jàppale. képp ko nga xam ne rek yow jullit nga. fii ba màkk fii ba Arabie Saoudi fii ba àdduna yëpp képp ku xam ne rek yow jullit nga yàlla moo tax ngay def defuloo ngir alalu àdduna gi defoo ngir ngisal yàlla moo tax ngay def te payu yàlla rek nga ci séntu maa ngi lay ñaan yàlla ci barke laa ilaaha illallaah nga dimbale ma ak suma njaboot ak ndimbal bu mu mënti doon nag. ba ñu ma lenn ba dara waaw ba dara billaahi wallaahi ba dara c'est que bi bëggewuma ko woon nii sax waaye fallait mu demee nii wit wit wit sargal jigéen la tey waaw émission sargal jigéen la mm-hmm. kii ku ko sargal yàlla sargal ko ku ko sargalul yàlla sargal ko mm-hmm. est-ce que dégg soo ko sargalee yàlla sargal na ko boo ko sargalul yàlla sargal na ko. parce que lépp lu nga xam ne rek mu ngi am ci wareefu jëkkër ak jabar mu ma koy defal. man du ma toog ba ne est-ce que man la fañ laa. billaahi wallaahi du ma ko xalaat ma toog ba ne handicap laa. wallahi azim du ma ko xalaat. Mhm. parce que xam nga lu tax du ma ko xalaat aw dara loo xam ne rek moo may empêché te moom mu ngi toog su ma wet. Mhm. wala may am problème mu dara loo xam ne mu ngi toog su ma wet. Mhm. amul. amul. dara luy am su ma wet. billahi amul. yàlla na ko yàlla defal jàmm ak njabootam. amiin amiin amiin. yàlla na ko yàlla defal jàmm. mu ngi noonu. vraiment xam naa fi la ñuy yemale émission bi donte bëggewuñ ko woon nii tamit waaye di wax ñi nga xamante ni ñooy bonne volontaire yi ah vraiment dëkk bi da am na ñuy def te yàlla tax te bari na ci tamit ah, nañ jàppale ñii parce que métti na trop boo gisee situation yi ni mel ba pare nekk ci kër du luwe ak ni jamono mel vraiment métti na trop ci ñi nga xamante ni dañoo yor sax ay tànk di dox. waxuma laa koo xamante ni laa ko la ba pare yor njaboot donc ñu ngi woo képp koo xamante ni bëgg nga ko jàppale numéro téléphone bi dinañ ko dugal foofu mën nga ko woo ci numéro téléphone moom direct moom ngay jot pour nga jàppale ko te yàlla rek tax ah amaana tey émission bi du mën a dem parce que sargal jigéen la waaye tamit xolitooy yi tooy na naa Omar dañ ko fi yamale rek ah, tey looy tàggatoo. man lu may tàggatoo. gannaaw ba ma ñaanalee Sénégal ak àdduna yàlla def fi jàmm ak salaam di ñaanal yàlla si bépp néew di doole yàlla may la xolu muñ surtout yàlla na yàlla dolli xolu muñ gën ñoo xiir ci boppam waaw waaw parce que nag waali sama jabar la woo awa waali waaw suma jabar moo ko woo awa waaw moo ko woo waali sekk hmm. doomi Thione Seck. Wally Seck moo la woo. man de daan naa fekk sa papa Wally Seck ca Paas ca immeuble ba. ndeysaan billaahi wallaahi jamono maa ngi Medina maa ngi rue onze angle quatre su ma demee ba jàq damay dem fekki Thione Paas à Paas marché Paas. mu nekk ca immeuble ba. su ma ñëwee xam naa sax boobu moytuwul jaaga pàtte na loolu. jabar ji war na fàtte loolu. mu nekk xale bu tuuti waale su ma ñëwee jabar ji su ma yéegee ci kaw étage ba toog ba ma ba ma yéeg ba jàpp ba ma yéeg maa ngi bu ma duggee rek maa ngi toog sa góos nii am na benn banque bu fa nekku benn chaise bu ñu fa tegoon sa góos. laa daan toog di xaar papa coon su ko defee soxna si da koy yee par porte même buy nelaw da koy yee. coon ñëw defal ma lim may defal ma jóg wàcc dem régler sama kër ñëw toog. kon loolu sa bàyyi daan def ci man maa ngi lay ñaanal yàlla yàlla nañ ko continuer yàlla nañ ko continuer te di la ñaanal yàlla yàlla sàmm la ci barke bisimilah rahmaani rahim sàmm àdduna yëpp maa ngi ñaanal nag yàlla képp ku nga xam ne rek mën nga te am yéene pour dimbale ma maa ngi lay ñaan yàlla nga dimbale ma ngir yàlla ma jàppale suma njaboot yóbbu suma jabar ji màkk loolu rek laa bëgg de loolu rek laay ñaan yàlla. incha allah loolu dina am bu ngi noonu gars yi. naa fi la ñuy yemale émission bi. <laughs> waaw. doomu may suma papa Alaaji Jaw sant bi waaw. suma papa Alaaji Jaw ci Kanda maa ngi lay sant bu wér yàgg sa njaboot. maa ngi lay sant bu wér. papa Alaaji Jaw maa ngi lay sant bu baax. papa Alaaji Jaw sa njaboot nag moo bañ ma siiwal la. waaye kon ma siiwal la ba àdduna yëpp yëg ko waaye dinaa la siiwal ba na yëpp yëg ko maa ngi lay sant di la gërëm di la ñaanal yàlla yàlla guddal sa fan sàmm la sàmm sa njaboot keroog ba ngay ñëw Kaolack ci biir kër ba may ñëw kawlax ba nga may toxal si Kaolack may ñëw Kaolack maa ngi lay ñaanal maa ngi la fekk say tànk di metti di lay papa nga bàyyi lépp ñëw waaye kitaabu naa ko ci war may baatu laa ilaha illallah ba ma wéeteeg yàlla sama borom say tànk wér na de am na ku taxawoon ca bis ba ba may sargal di ma defal lu rëy loolu mu ne kii ñaanam lu mu la mënal waaye tey sama ñaan de ku ko xeeb ku ne dangaa gëmul ne yàlla am na parce que yàlla moo ñu sàkk ñu néew di doole yàlla moo ñu sàkk lafa ñun ñu gumbaal ñii muumaal ñii dofloo ñii ñii amuñuy loxo buñ demee douze yaa leen départ yow yàlla matal sa lépp pour lan la pour boo ñu séenee di dem sa xel mën a dellu ci yàlla. nga mën a jaamu yàlla. di xalaat li dal kii kat man mënoon na ma dal de yàlla may ma tànk may ma bët may ma loxo may ma lépp lu ma bëgg a def defal sama bopp soo yërëmul jaamu woo yàlla pert nga. kon papa Alla Diaw yàlla na la yàlla defal jàmm. papa papa Alla jaw yàlla na la yàlla suturaal. yàlla mi sàmm yàlla na la yàlla doolu sàmm papa laa jaw maa ngi lay ñaanal yàlla ci barke laa ilaha illallah ndegam néew di doole laa gëm li ma doon gëm li ma doon yàlla nga pekk say njëriñuy njaboot bu bëree bare bari ci barke laa ilaha illallah di sant sama yaay nag xarit salaan lépp yow la lépp yow la su ma amee xolu muñ yow la su ma amee jom yow la su ma jaayantee ba pii nii tey yow la yaay booy yaay maa ngi lay ñaanal yàlla nga gudd fan yaay yàlla naa la yóbbu màkk yaay ci barke la ilaha illah yàlla na ma yàlla dimbali ci barke la ilaha illah ba ma yóbbu la màkk nga ànd ak sama jabar jii ngeen dem màkk ci awa Diouf ci barke laa ilaha illah jërëjëf yaay jërëjëf yaay